quart de finale Siny Bargny Jini Sara Jini Sara bu Marloj ak Siny bu Bargny Jini Sara daw na jël Siny jàpp na tànk Siny ba attention ngañ seen Jini Sara laa ilaaha illallah ñi bëgge waa Marloj dëkk Malka maak jeeno safando o jëm gandun doomu ndey Edouard im le jox waaye Aliou Konté champion borom Espagne maa ala ziar nañ la Pogba di bëgg waa Bargny si ni moo nu woon gannaaw sa délégation trois quarts de Jini Sara Sidi Bargny mbot Jini Sini attention Jini Sara Sini Sini mbot na Jini Sara la ilaha illallah Sini daa mun bëre